asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu liggéeyu daara ju mag ji di mu jàmm cheikh ahmadul xadim bi cheikh mohamadou muntaxa mbàkke di liggéey mi ngi sori ñu toll nag ci war a tàmbali njàngale mi ci yenn ci wànqaas yi balaa yàgg loolu mooy sababas jataay bii amoon cheikh mohamadou bachir ibnu sëriñ abdul xaadir mbàkke yor kàddu sëriñ bi feggoog sëriñ Ahmadou Badawi ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal mi sëriñ bi jiital ci liggéey boobu ñu yëkkati ay kàddu yu leeral mu jëm ci tàmbali liggéey boobu di jataay bu amoon alxemes fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ati gàddaay gi dëppoog 13 octobre atum 2022 ci Touba daalu Minan ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alhamdulillahi lazi hadaana li haza ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ci ndigalu sëriñ bi yëkkati ay kàddu yu gàtt jëm ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yi kàddu yi ne li ci jiitu mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuubaa di ñaanal di ko ñaanal moom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér loolu li suñ doom loolu li kàttanam ak wéram ba leen bëgg liggéey Serigne Touba lépp mu sotti ni mu ko bëggee kàddu yi nag li ci jiitu mooy kàddu sant rek ndax liggéey bu rëy bii nga xam ne ba yàlla defee ci suñ boroom teg ko ci jataayu Serigne Touba bi mu nekkal fi Serigne bi kàddu yi yëpp njëkkoon a yëkkati wax ko. wax ne bi ma agsee amu benn xalaat walla jënd yitte lu muy sumb daara jure ji nga xam ne sëriñ Touba moo ko naaroon mu desoon fi ci ay naaram mooy yitteem ju jëkk mooy yitteem ju mujj kon nag dañuy sant yàlla bu baax ndax bu yàlla defee muy bëgg-bëggam am ci taw feexe sëriñ bi it mu dem ba liggéey ba toll ci li ci ëpp àgg ba bu jeexagut it waris na ko mën a tàmbali ba ci weeru octobre bi ci lañ ko war a mën a tàmbali sëriñ Ahmadou Bado yi mi nga xam ne moom la sëriñ bi teggoon loolu ci loxoom lépp bañ saytu mboolem liñ ci war a def ba ubbi nañ ñi nga xam ne ñooy war a dugg ci biir daara ji dana ko gën a leeral kon sëriñ bi nag li jiitu ci kàddu yi mooy sant rek sant. bokk julli di sant bokk teer bi di sant itam ñu bokk Serigne Touba ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñu àndoon Serigne Touba ba yoon wi agsi fii mu agsi tey ci naalu réew yi nga xam ne sëriñ Touba boo demee ci Matlabul Fawzayni daa waxoon ne li tax mu sanc dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi wax ne li tax mu sanc ko mooy li taalumi wa taalim wax ne muy ñaan suñ boobu mu nekk maskana taalim waaye mu nekk maskana taswib waaye mu nekk it maskana kon loolu lépp mooy tekki ne sëriñ bi dëkk bii di Tuubaa yéeneem jëpp moo doon mu nekk dëkkub xam-xam ne ko sëriñ bi waxe woon ca ba muy woote liggéey bi ci kër sëriñ Tuubaa gi wax ne fu ñu déggee jàngukaay yu mag yi bëgg na bii bu leen jiitu tam bum mu leen yées kero ba muy teg xeer wa ci loxoom yu tëddee ànd ak njabootu Serigne Touba gi gépp kenn desut mu ñuy fàttali ba Serigne bi di teg xeeru njaarim waaye kaddu yam ci waxoon ne mu ngi ñaan liggéey bu laal suuf mukk loolu di wax ju xóot joo xam ne mel na ne Serigne Touba gàttandu na ko ci ndax lii kat université doonu du yomb. doonut tam liggéey bu tuuti waaye ñëpp bàyyi xelit ne lam waxoon daaw jég daara ji bu demee ba àgg itam nañ xam ne li koy saytu ak li koy yor mooy ëpp la ca la ko tabax kon loolu itam nit ñi nañ xam ne ab noflaay amu ci ne ñëpp takkaat laxasaay rek gën cee góorgóorluwaat ba liggéey bi lépp sotti waaye itam la yor itam ñoo xam ne lépp ñoom la war taalibe la war te xam ne kuy dàkk bëgg Sëriñ Tuubaa dara jiitu ko ci loo ko war a dàkke xam ne suñ bu jugee ba nëgë loolu mooy jiitu ci ab ab liggéeyam Cheikh Ibrahima Fati xam ngeen fi ko ci sëriñ bi féetale woon ak sëriñ Mbacke Bousso ak suñ daam Abdourahmane Lo kon Sëriñ Tuubaa loolu moo doon ab liggéeyam daana wax ne waxtaan ma damay jàngale kon lii bu demee ba agsi fii tey te Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ko fi njëkk nekkal xam ngeen ci lu wér ne waxuma taxawali daara waaye moom ci boppam daana jàngaleel boppam ba am na ci njëwar sëñ bi ñoo xam moo leen jàngal kon Cheikh Mahamadou Fadil bim inauguré jumaa ji mook daarul maarif al islamiya ñoom la ubbeendoo kon loolu nañ xam ne kon mooy seen dite ba ci lii somb yi nga xam tey Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla def na ci loxoom la ko tàmbali woon ndax sëriñ bi xam ngeen ne yónnee woon na Égypte yónnee woon ci réew ba Màkk sax ngir ñu jëlee ko fa ay ba ci Mauritanie yoo xam ne lim ci mooy dane bu daa sama daara ji noppee fenn fune waaye dafa jugee di fi jàng si kon loolu lu yàgg la moo taxoon Cheikh Abdoulaye defoon maktaba bi boo bëgg ko naalaat daara ji Cheikh Abdoul Khadir itam Serigne Cheikh doom wax na ma ne. fukki weer ak benn yi li fi am ba mu koy tàggu da ko ne sama liggéey bépp de li ma li ma ko fas yéene jëme mooy jàngukaay bii Serigne Touba bàyyi woon ma fexe ba àggale yàlla suñ boom dogalu ko ba yàlla def Cheikh Saliou Mbacké ñëw àggale woon liggéey bu njëkk ba bañ ubbi daare alxuraan ji ak daare majalis tegoon ko ci loxol suñ Moustapha doomam ak suñu Abdou Lahad suñu ak suñu jili ba yàlla def as cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw mu bokkoon ci ay naalam as cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ñëw mu bokk ci ay naalam ba yàlla def na ku ne nag dala suñ borom cërale ak langa xam ne sa bàggute fa sëriñ bi ñëw sëriñ Touba gàttalu ko ci gunge ko ci mu wax ne aw ma jënd yi tëjul ji kon nag boo ci yàlla defalee tawféex ba liggéey ba toll fi mu toll kon tawféex la joxam ne. jàpp naa ne bis bisum ndam la waaye bisub ndam la ci lislaam bisum ndam la ci Serigne Touba waaye bis la boo xam ne moom mii kat tey bu fekkonte ne sëñ naa puukarewu man istaa ne bisub puukarewu la na ko Serigne bi wax waxoon ca njaarim kon na xam naa ñu xam ne ubbiti gi daal kon jot na ñu teg nag loxo lo kàddu gi ci loxo la Serigne Ahmad Badou mi nga xam ne boo ko Serigne bi wax yëkkatee. daa waxoon ne dama leen cee fekkoon ci liggéey bi moom ak waa daayira Rawdu Rayaahiin ñu du ko taxaw ñuy taxaw mboolem lu jëm ci xam-xam ci dëkk bi yàlla def mu fekk leen ci ñëw ànd kook ñoom jëlaat liggéey bi yëpp teg ko ci seen loxo ñu def ci taxawaay boo xam ne amatuñ guddi amatuñ bëccëg bàyyi nañ seeni liggéey bàyyi seen seen waxtu lépp jëmee ko ci liggéey bi ngir bëgg xam ne bu seen bi xolom seddee la mu bëgg mu am kër ñoom ñëpp ñu am luñ bëgg. kon nag ñoom yàlla def na leen ci tawféex ak nam ndax liggéey bi ko xam fi mu jaar ba ak si fi doon lu yomb ndax mën xaj bi nga xam def nañ ko lu kawe la loo xam ne yaakaar naa boo ko yóbboon si yeneen dëkki lislaam yi itam ñoom dañ jure waaye fii dootuñ jure it kenn kon ni ko siñ bëggee woon amee na kon nag ñi ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla ko fi suñu borom bàyyi ba naar bi lépp sotte ba xelam dal ci ni ko waxee woon ndax nee na balaa sumbaat dara. université bi day àgg ba xelam dal ci ba yoreen wi lépp leer ci moom mu dooru sumbaat leen kon nag loolu lépp yàlla na sotti ba mu sumbaat leen ci kanamam te lépp mu fekk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aousubillah min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al anbiya wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xeyra xadimihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ci jiital ab nuyoo bu tedd bu sell bu kawe akub ziyaara jëme ko ci a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyil na ko fi te may ko wér ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ bi mu mën koo def ni mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom di sant sunu borom bu baax a baax ci jataay bi. muy jotaay boo xam ne dañ koo def ci ndigalul sëriñ bi waaye yëgle tàmbali liggéeyam bu tedd bu sell bii muy liggéey boo xam ne liggéeyub sëriñ Touba la liggéeyub sëriñ Touba mooy liggéeyub yonent bi sallallahu alayhi wa mooy liggéeyub lislaam mooy liggéeyub jullit yëpp sëriñ bi waxoon ne ca kàddoom yi tedd ya dafa bëgg daara joo xam ne dafay tàmbalee ci kii dal baasin ba ca njobaxtan la loolee nag ban ko xalaatee mu am tawféex yi mu duñu ci liggéeyloo waxtu wu ñu tasee dañ sant sëriñ bi ñaanal ko sant sunu borom sant sëriñ Touba ndax sëriñ tubaa liggéey loola ñi seen aajo faju ñëpp mag ngi ñëkk ñu baax ña dañ doon dàkk bëggu sëriñ bi nu am tawféex yi nag taseeg sëriñ Touba mu ne nu lii laa bëgg te nii laa ko bëggee saa buñ jotaay buñ toog rek loolu la ñuy tàmbalee sunuy kàddu soog a tàmbalee waxtaan loolee nag sëriñ bi ba ciy liggéey nu xalaat ne kat li sëriñ bi wax mën xëj la mën xëj tarbawi mën xëj tarbawi islaami muridi wala mën xëj tarbawi islaami bu cheikhul xadim buñ ko doon wax ci waxinu gone yi ni ñu déggee mooy modèle wala système éducatif boo xam ne dafay indi njàngulem lislaam moom Serigne tubaab bu waxee Serigne Touba mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seriñ bi na ku koy liggéeyal ci li ngay tàmbalee mooy daaree alquran ndax alquran mooy léppam lépp Serigne bi mooy alquran moo tax ñu waajal daare alquran yoo xam ne gone gi dafay jàng di mokkal alquran foofa la ñuy tàmbalee mooy li njëkk a tàmbali incha allah li ci topp mooy njàngum xam-xam majalis ni ñu ko daan jàngee fii ci dëkk bi ci jumaa ji ak ci daara yu mag yi kër seen choy bu ak jumaa daara yu mag yi muy njàngum majalis bi ci topp mooy bi kawe bi ni ñu tuddee kulliya wala UFR it buy jàngale wàllu dirasat islamiya wala xol arabiya boobu mooy ñaareel bi ñeenteel bi mooy fi ñu jàngalee mbirum kër docteur yooyu nag dañoo xool lu ci nekk moo doon loo xam ne mënut a ñàkk alxuraan ji moom mooy mooy yëfi sëriñ bi mooy ndam bi xam-xam mooy cosaanul bépp xam-xam bu am njariñ moo tax moo ciy jiitu dëkk bi itam daara la ni ko sëriñ Cheikh Mahamadou Bachir wax léegi wajaxlu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajaxalhu maskana xurujin min zulam lindoor yi wakfi anhu kulla man zalam loolu moo tax eh, daare alxuraan ji moo jiitu mooy lépp itam daare ji nag sëriñ bi daf koo def ay da koo séddale mboolem kër yu mag yi muy njabootuk sëriñ bi ak bokki sëriñ bi ak seex su mag si nga xam ne ñëpp dañoo gàddaay yoon fekk si sëriñ bi fu sëriñ bi dafaa dugal ab cër ngir taal ba sëriñ bi taaloon mu fëggeewaat gilin ya jël ci ay donga ñu yaroo fi jàng fi ñu yar leen tëbb ko barkeeloo ko ci yar bu ma njëkk ba nga xam ne moom la sëriñ bi yaroon mag ña moo loolu mooy daara alxuraan ji bi mu noppee itam am na ci lim boo xam ne dañ koo jagleel amatul muridin nga xam ne murid yëpp ñoo ko bokk loola nag moom tàmbali nañ ko ak loo xam ne itam amatul muslimin ndax ni ma ko waxee léegi Serigne tubaa moom ñëpp ko bokk képp kuy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam njabootu Serigne Touba nga kon alali Serigne tubaa jullit yëpp ko bokk moo tax cër yooyu nag nga xam ne Serigne bi daf ko séddale woon dem nañ ci seeni borom ba jox leen ko li nga xam ne nag mooy eh, li nga xam ne moom lañ jagleel amatul muridin dañoo ubbi ab barab ci jumtukaay yu xarala yi yoo xam ne nit ñi mën nañ caa dugg di bindu waaye foofa macha allah sëriñ bi gis nañ ne nit ñi yàkkamti nañ ko lool nit ñi bëgg nañ ko lool la ci bindu noonu ñemewu ñu wax sax lim ba fi mu toll nii waaw li nga xam ne itam mooy kulliyat dirasatil islamiyya bi lépp lu ñu daan jógee di ko jàng ca université yu mag ya nga xam ne sëriñ bi ba mu tuddee wooteem bi waxoon na ne daa bëgg buñ doxee feek ñetti téeméer at mu tolloog ñooña mboolem ñu fa daan jàng ci xam-xamub diine dañ koy jàng fii waaye dañ koy jàng nag ni ko sëriñ Touba jàngalee dañ fiy jàngale itam ñi nga xam ne mooy mag ñu baax ñu nekkoon ci réew mi di bokki sëriñ bi te nekkoon ci lislaam ñoom dañ leen fay jàngale seen i xam-xam ngir gone yi fi génn ëllëg xam diine xam sëriñ bi waaye xam réew mi xam may yi nga xam ne ak baax yi nga xam ne sunu borom def na ko fii ci réew mi bañ xam ne ba borom bi subhaanahu wa taala di séddale mbaax fàttewunu danoo jàpp ne sax danoo beral loxo te sëriñ bi waxoon na ne wala tuxasis fadla rabbin xat ala li di taxaddumin faqat fatajhala attallu qad yabdoo amaama al wabli wal fadlu lil wabli laa li talli waaw sëriñ bi waxoon na ne falay suyu jubu sawaadul jismi adamu fawzin bi azimi al qismi loolu lañ bëgg nag ndaw ñu yóbbaale ko xam li nu sunu borom defal ndax nit lu mu xamul du ko mën a téye du ko mën a jàpp kon moo tax kulliya dirasatil islamiyya bi dañ fiy jàngale taarixu senegal waaye di fi jàngale sëriñ bi am na fi itam ab jàngukaay boo xam ne mahad at tasawuf wa dirasatil lañ ko tuddee nga xam ne moom dañ fiy jàngale tasawuf waaye ni sëriñ Tuubaa jàngale tasawuf teg ko ci alfiqhul maliki wal aqida al ashariya mooy jiitu alfiqhul maliki wa tasawuful junaydi ci loolu lañ ko bëgg a tënk ñetteel bi nga xam ne mooy ñeenteel bi ci li ubbi mooy daare alquran ji majalis bi kulliya dirasatil islamiyya wa luxal ak fi ñuy jànge mbirum kër docteur loolu itam dañoo waxtaan ak ñu yor wàllu kër docteur ci dëkk bi ñu xool liñ gën a tumranke ci wàllu googu ñu bëgg a tàmmu li tàggat ndaw ñooñu ñoo xam ne njabootuk sëriñ bi la ñu doon di waa dëkk bi ñu jàngal leen ko ci njàng ma gën a kawe ngir ëllëg ñu mën a tàmbalee jàpp ci dëkk bi waaye mu yaatu ba ci région bi ci réew mi ba ci Sénégal ba ci àddina bi yëpp loolu itam bu noppee day jàppalante ak ak hôpital bu mag bii ñu fi defal Cheikh Ahmadul Khadim bii fi nekk nga xam ne moom day daal di daal di àgg ca kaw rek fa université yu mag yi gën a àgg ndax loolu daa bokk ci li mënta ñàkk ci njàng mu kawe mi bu noppee nag incha allah ci at yi ci kanam tuuti nag ñu tàmbali nag di ci topp njàng yi ci des ndax niñ ko xalaate dañoo jàpp ne garab la garab gi mooy tuuba nga xam ne asaala wal maasara bi ñu sëñ bi daan wax reen yi day sax ci lislaam di njàngalem sëriñ tuuba car yi nag di màgg di màgg nag di law bépp xam-xam bu am njëriñ rek mu mën koo ñoddi indi ko ci dëkk bi indi ko ci réew mi indi ko ci njabootuk sëriñ bi kon ñu ngi wàcce sunu kàddu bañ a guddal di ñaan sunu borom bàyyil na fi sëriñ bi di sant sunu borom di ko santale moom itam sëriñ bi ci jëf ju màgg ji nga xam ne tàmbali na ko ñu ñaan mu yeggale ko ba tegaat ci yeneen yu baree baree bari tàmbali bi nag dañuy tàmbali nekk ci biir rek di doxal liggéey bi sëriñ bi nag mooy soobu mooy seet waxtu wu ko soobee ak ñum nu mu ko soobee mu yëglee ko noona wootee ko ngir ubbite gi waaye dañoo tàmbali rek nekk ci liggéey bi di dox rek di dox rek bu ko defee nag siñ bi nag moom ci cadre ci coobareem waxtu bu ko soobee rek yëgle ga ak woote ga moom moo koy defal boppam ñu ngi sant di gërëm tey ñaan mu yàgg fi lool te ak wér salaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokki taalibe yi ñoo dégg kàddu leeral yooyu mu jëm ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yëkkati na ko ñu ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér naal yeneen dolli ci lépp ñu ànd kook moom ci sàkku ngërëmal cheikhul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu